dàtt bi ñu génnee ñu ngi nekkoon ci dundu nabiyullahi suleyman alayhi salaam tey noo ngi ñëw ci qissatu nabiyullahi zakariya wa yaxya alayhim assalaam muy dundu yonent yàlla zakariya ak yaxya seen dund dafa duggante zakariya mooy baayu yaxya yont yàlla isa <clears throat> moo tey dundu mariam al azra dana ca يننت يالله زكريا عليه السلام كان لتي يننت بنو إسرائيل يننت لبو خمني برم تعالى وتبارك دكو يني كبرب بو خمني ay yahud ñoo fa nekk bi mu ko defee yonti yàlla zakariya <coughs> liggéeyam moo nekkoon ab menuisier la woon dafa daan liggéey di dekk daawul tàllal loxo di laaj addiya di ñaan comme ni mu xewee tey toog ni rek soo baaxee ragal yàlla da war a toog croiser les bras nit ñi di la laaj nga leen di jox bërëb bi nga xam ni <clears throat> fa la yàlla Zakariya nekkoon mook soxnaam bërëb boobu Palestine la sëy nañu diire bu yàgg ba Zakariya mi ngi dugg ci juróom-ñett fukki atam amul doom moom ak soxnaam waaye xam nga nit buy sëy te amul doom bëgg-bëggam rek mooy am doom ndax jàpp gi mu jàpp ne doom daa bokk ci sëy jaaxle na soxnaam jaaxle na soxnaam si moom it mi ngi nekk mag ci yaayu maryamul azra mooy soxna zakariya diggante boobu nga xam ni waxtu wu nekk yonent yàlla Zakariya mi ngi ñaan doom <clears throat> jamono boobu am na benn boroom xam-xam bu dëkkoon ak ñoom te gëmoon it yonent yàlla Zakariya nekk boroom xam-xam momit nek ku ñuy delu ci mom ci walu xam xam-xam ginnaw nabiyullah zakariya borom xam-xam bobu mom lañuy wowe imran imran momu mo jur maryam waye bokul ak imran bàyyi musa alayhi salam imran soxnam من تد حنة بنت فاخودة حنة بنت فاخودة نك برم خم خم بمك دي دندو مومت اك سخنام يالا دغل سخنام جلن امبو تي يبوكو diggante bi gaañu na ci diggante bi moom Imran benn bis nag yaayu Maryam demoon ci tool ya yëgul ne ëmb na jëlagut ëmb waaye bi mu ñëwee ci tool yi mi ngi fekk benn pison bu rafet boo xam ni mi ngi taxaw doom yaa ngi toog pison bi day fex lekk di ko sexal doom yi doom yi di fex léeg-léeg mu naaw pët pët wàcc doom yi naaw wàccaat mu sexal leen mu mel ni dañoo nekk ci bërëbu sigré ñoom njanaaw yooyu bi mu gisee loolu ndeysaan xolam tooy moom yaayu Maryam ndax moom it amagul doom te bëgg na doom ay rangooñam daldi tuuru bi rangooñ yi tuuroo nag mu tàllal yàlla loxo daldi koy ñaan doom ndax ya xam na ni yàlla rek kay maye doom moo tax doom boo ko amul ki mat ñaan doom mooy yàlla ginnaaw ba nga jubloo ci sa wàllu faj mu ñaan yàlla ne ko dama bëgg nga may ma doom bu barkeel te nidar naa yow sama boroom doom jooju boo ma ko mayee su juddoo dama koy def xaadimul masjid su juddoo dama koy may jàkka ndax jàkka sa néeg la yow yàlla doom jooju nekk koo xam ni day toppatoo jàkka di ko bale di ko setal di fa jaamu yàlla moom la borom bi di wax ne id qaalat imraatu imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka samiu dua moom xanna mu ne borom bi maa ngi nidar lii nekk ci sama biir mu nekk lu ñu goreer kon yal na nga ma nangul yow yàlla ndax kat aji dégg nga waaye aji xam la bi mu waxee loolu ndeke ñaanam <coughs> allah tabaraka wa taala nangul na ko ndaw fi ëmb borom këram gaañu mu jékki ba mu yàgg yëg ni ëmb na kontaan bi mu ko defee yàlla may ko mu am doom yéenéem moo nekkoon mu am doom ju góor may ko jàkka jàkka di ko toppatoo waaye yàlla mayu ko doom ju góor doom bu jigéen la ko may ndax daa bëggoon doom jooju su ñëwee nekk muharraran li baytil maqdis ba mu ko juree mu nekk jigéen mu am déception déception mooy góor la foogoon ni lay am ca mbetteel ndeke jigéen la am mu daal di jàq jaaxle ne man moo ndax li ma bëgg góor mën jigéen mën na ko jaaxle borom bi ne falamma wadaatha qalat rabbi inni wadaatuha unsa wallahu aclamu bima wadaat walaysa aldakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam borom bi ne ba nga xamee ni xanna wusin na gis ne jigéen la ci la ni yàlla ah la ma waxoon day fàttewu ma ko génnuma ci waaye man mii daal jigéen laa am aw ma góor borom bi ne ko maa la gën a xam li nga am man mi la ko may ala yaalam man xalaqa wa huwa al latifu alxabir borom bi tegal ko te ne ko wa laysa zakaru kal am na ñu ne xannatu moo wax baat boobu ne góor ak jigéen yemuñu waaye daal li am mooy wa inni sammaytuha Maryam xale bii tuddee naa ko Maryam Maryam ci seen làkk mooy ku ñu barkeel koo xamante ni ci yiw rek lañ ko bëgg a gis yàlla subhanahu wa ta'ala daa sàmm Maryama moomu di nekk liir kom ndaw si waxoon na ko nag la jaadu woon mooy mu delloo ko jàkka ji moo ko ñaanoon moom daal nampal na xale bi ba mu fer tegu ca benn fan ñaari fan daa koy yóbbu ñaan ba mu ñaanoon ginnaaw ba maryam juddoo non la wa inni uiiduha bika wa dhurriyataha min ash-shaytani alshaytaani alrajim fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا حنة من يو يالله maa ngi lay muslul ci xale bi ak njabootam nga musal leen ci seytaane yàlla ne nangul na ko ñaan boobu ci nangu bu rafet maanaa yàlla yàlla na musal Maryam ci seytaane musal njabootu Maryam ci seytaane borom bi taala wa tabaarak daa di ko koy nangul loolu moom moo tax ñëwna ci riwaya bukhari ak muslim ñu jëlé ci abu hurayra radiallahu anhu wa arda mun yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ma min mawlud yulad illa naxasahu alcheytan fa yastahilla faarixan min naxsati alcheytan illa bna maryama wa umma ne yonent bi ne amul kenn ku juddu ci mbindeef yi lu dul ba nga juddoo seytaane njoof na la nga yuuxu képp ku juddu rekk seytaane fekke na ba ngay juddu njoof na la nga yuuxu moo xam guddi nga juddu walla bëccëg nga juddu hôpital nga juddoo walla ci kër yi nga juddoo foo munti juddoo iblis fekke na kon iblis ku doy waar la <coughs> ne su fekkee liir ba judd nag da koy njoof ngir bëgg xale bi topp ko loolu moo tax bu liir juddoo ñu bëgg ñu noddal ko muslul ko yàlla أعيذك بكلمات الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة كون يننتي بني كو جدو seytaane njoof na la ba mu def ñaar ñaar rek ñoo judd fekkewuñ ko bi Maryam di judd seytaane fekkewu ko laalu ko gisu ko bi Isa di judd naka noonu waaye teewul seytaane xeex naa xeex ba yàq seeni tur ndax gis nga Maryam seytaane xeex naa xeex ba ay nit naan soxnay yàlla la wal billah te borom bi mattaxada saahibatan wala walada fexe na ba doomu Maryam ñu ne doomu yàlla la kon iblis du bàyyi xeex nit dina dee sax iblis di xeex ak yow ngir yàq sa tur moo tax léeg-léeg nga dégg ñi dàq nar ci narkat yi mooy dañuy bàyyi ba nit gaañu su dee ku bëgg jaamu yàlla la ñu waxal ko fen wu rëy wu mu dul dindi njabootam duñ ko dindi xam nga aw fenn wu rëy weesuwul nga ni sëriñ sàngam nee na sama daraja firawna ak iblis su ne woon yàlla bu ñu lakk yàlla du leen lakk loolu ku àgg ci ñemee wax loolu nga xam ni musiba am na kon loolu seytaane moo koy def day jël nag alabdul xasim borom làmmiñ bu mën a wax am tur ñeme fen lool mooy toog di wax loolu du nag di ko wax ñu koy dégg mu foog ni da ciy def ba da ciy yëkkati turam fekk mi ngi toroxal boppam ndax wax na loo xam ne dana ko layoo ko ko wax iblis amul kenn ku mën a def intervention ci digganteem ak boromam moo tax ka ko wax ba mu koy waxee la taalibe waroon a jóg ne ko yaa ñeme kàcci loolu amut waaye Sénégal dañuy seetaan nit muy wax mbuusi ba rek ñu naan eskay feeg li nit kiy wax ci compte tarixa bi nga bokk rek dagan na wa daganatan gis nga li nga nangu ñu waxal ko sa sëriñ buñ ko waxalee beneen sëriñ da nga koy bañ kon war ngaa xam ne njub àndut ca loolu moo tax mbokk yi abu hurayra nee na wax jii ma wax su ngeen ko weddee ne ngeen jàng wa inni uiduha bika wa zurriyataha min alcheytan irrajim bi mu ko defee xanna daa di jël maryam bi mu jëlee maryam daa di ko yóbbu indi ko baytil maqdis joxe ko ca jàkka ja ndax loolu la niberoon bi mu ko indee nag indi xale bi boroom xam-xam yi nekk ci jàkka ji ak yonent bi fa ne di Zakariya ñu nar a xëccoo xale bi kenn ku nekk ne man maa ko war a jël maa koy yar Zakariya ne leen déedéet maa fi nekk may njiitu jàkka ji te xale bi yaayam ak sama soxna ñoo bokk ndey ak baay te jigéen la kon bàyyi leen ma yar ko mu nekk ci suufu yaayam bu ndaw ñu toppatoo ko gaay ne ko déedéet nu nga ko bëggee yar lañu ko bëggee yar comme dañ koo may jàkka ji xëccoo boobu nag nekk seen diggante ñu mujj dëppoo ci ne kon ana mooy solution xale baa ngi nii ku nekk bëgg na koo yar kon seule solution mooy ñu daal bantale bantale mooy ñu def benn genre sànni bant loterie loterie mooy ku nekk jël bantam bind ci turam walla xàmmekaay ñu jël ko sànni ko ci ndox mi ku bantam taxaw rek yow yaay yar Maryam su ko defee kenn du wax ni gën dafa am walla leneen ñu def ko loolu ñu ne waaw bi ñu génnee bant yi ñoom ñépp sànni bi ñu sànnee bant yi bu Zakariya sampu mu sampo gaay xol xool ne ah il faut ñu sànniwaat ndax ben sanni la rek ñu sànniwaat bu zakaria sam ñu ne nañ ko ñettel ñu ñettel bu zakariya samp gis nga mbir bu ko ay nit bëggee di ko xëccoo ba mu àgg ci loterie gañe ko du yomb ndax léeg-léeg mën nañoo sànni ki ñuy bañ basam génn bu génnee ñu ne ni ñu tànnee moo baaxul loolu li koy indi yëpp mooy bëgg koo xañ rek waaye ku yàlla jox pexe bu ñu defit dana lalli pexe moomu indi moom bëgg-bëggam wa yamkuruuna wa yamkuru llah wallahu xayrul makirin bi mu ko defee bantale boobu ñu doon bantale wir kar mooy yar Maryam yonente bi sallallahu alayhi borom bi wax na ko ko ci suuratu ali imran ne ko maa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladayhim id yaxtasimun ne yonent bi li ngay nettali nit ñi te ken du ko mën a weddi yow de fekkewoo ko woon kon bu ñu déggee nga wax lii ku am xel war naa xam la yónni maa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum nekk woon fa ñoom bi ñuy sànni seeni bant di bantale kenn ku nekk bëggoon a yar Maryam ba ñuy xuloo naan gañe nga gañewoo wa maa kunta ladayhim iz yaxtasimuun fekke woo ko woon léegi nag bi ñu sànnee loolu amatuñu pexe ñu ne ah kon day fas mbir fa yàlla dañ ko bàyyee Zakaria Zakaria jël ko utal ko bërëb ci jàkka ji def fa xijaab utal ko mixraab ndax jigéen la fu muy làqatu bi mu ko defee mu nekk fa di gis tàntaam tàntaam di ko gis Zakariya di ko gis bis bu nekk moo tax boo yar njaboot góorgóorlul ba foo toll dee leen gis gis nga doomi maye doomi dénkaane lu ci bëri fitna lay indi ndax li nga bëgg mu nekk ci moom mën nga koo may ku loolu nekkul jikkoom ni nga bëgg mu mel mën nga koo jox ku melul noonu te nit ku ko yar jox ko ay jikko kon koy jox sa doom kuy vacances yi wala nga di ko dénk sa doom mu koy téye na nekk ku ragal yàlla waaye bu ragalul yàlla da nga yore xale buy jàng alquran jub baax lool nga yóbbu ko vacance quarante jours mu ñëw nekk fecckat lan moo koy waral mooy kër ga mu yaroo dañuy déglu musique guddeeg bëccëg doom ya fa nekk dañuy fecc dara nekku ca xale moom lu mu gis rek def bu fekkee nag tànta ji ko yar day taafu day melastiku day fecc bàyyi ji ko yar noonu yoonam ci musique xale bi bu ñëwee mën ngaa ñàkk sa doom moo tax ñu bëri ci wàllu vacance ñu war koo bàyyi xel ndax yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara borom bi nee na yéen ñi gëm yàlla fegal leen seen bopp safara waaye fegal leen ko seen njaboot Maryam yàlla defal na ko karaama defal na ko keemaan ndax keemaan gi mu ko defal mooy xale bi àgg na ci jaamu yàlla ci julli ak tudd yàlla ndax Zakaria mi ngi def loolu ci moom di ko jàngal seen téere ba ñu war a jàng di ko wan nan la jullee nan la ñuy jaamoo yàlla moo tax li ko malaaka yi waxoon yaa maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma arrakiin maryam toroxlul ñeel sa borom sujootal rukool bépp jigéen bu bëgg yàlla barkeelal la barkeelal sa njaboot julli doo ko sàgganee doo ko fowee nit ñi nag tay julli moom dañ koo jël rekk def ko fowukaay moom daal dangay def li ngay def ba pare doog a julli te li ngay def jullee ko gën balaa ngaa xam ne jullee ko gën su dee ñëwoon da def da ko bàyyi nit nag dina àgg ci sori yàlla koo xamante ni suy julli day sonn lan moo tax tàmmul julli léeg-léeg mu dal jigéen dal góor tëdd ci lal di nelaw nga dégg nodd xam ni julli jot na doo mën a jóg parce que dalaa ñorul su doon natt ba wala ndey dikke ba wala caaxaan ba sañoo koo tardé waaye julli moom nga ni yàlla moom amul problème heure bu ma paree rek naa ko ko jox loolu képp kuy gisee noonu yaa ngi am ngisiin loo xamante ni ngisiin lu bon la te da ngaa bëgg ëllëg sa njaboot baax sa doom baax kon Maryam dañ koo wax ni jullil rukool sujootal bokk na ci keemaan yi Maryam moomu fa mu nekk yàlla nga koy defal keemaan mooy ban keemaan mooy léeg-léeg Zakariya day dugg ci néeg bi wala ci mihraab bi fekk Maryam yore ñam boo xam ne du ñamu période bi léeg-léeg mu fekk fa ñam boo xam ni période am passé na amatul kon Zakaria lii problème am Mariam fan lay jëlee lii jamonoy tàngoor am na ñam yoo xam ne ci lay ñor jamonoy sedd am na ñam yoo xam ne ci lay ñor loolu nag boo ñëwee di yar nit fekk mu yor lu dul noonu na nga borom bi ne kullama daxala alayha Zakariya almihrab wajada indaha rizqa qaala yaa maryamu annaa laki haada way jur bu nekk yarkat bu nekk jëlal annaa laki haada sa doom bu jigéen liggéeyul élève la étudiante la nga xëy gis ko mu yore portable boo xam ni am nga borul yaak ñetti weer bu ñu ko jaayoon nga fay ko defal war ngaa xam ni fa sa doom jëlee jëlewu ko fu portable iphone xale yi jigéen yi doxantoo iphone nga xam ni bi ci gën a néew prix mën naa romb 200 mille ab deuxième mai rek di romb loolu kon nag su xale bi naree yore iphone boo xamante ni leer na la ni 900 mille lay jar ah loolu yow bàyyi soo gisee sa doom yor ko mais ko an naa la ci haada yaa xujja xujja lii foo ko jëlee mu waxal la ko ndax am na loolu ku ko yore sa mbaax joxut la ko saay saaye bëgg ci yow lu bon jox la ko kon doom su solee yére boo jëndul wala mu yore dàll boo jëndul wala mu am yow baay ji loo amul laaj ko ko zakariya bi mu laajee maryam ne ko foo jëlee lii qaalat huwa min indillah inna allah yarzuqu man yashaa'u bi gayri xisaab ne ko lii kat yow bàyyi ci yàlla la bàyyi koo yàlla kat day wërsëgal jaam jamono bu mu ko neexee ci lu dul benn coono man maa ngi fii daw ma fenn génnu ma ñaaniwu ma te yàlla ak may indil sama xéewal kon yow jullit bu la yàkkam ci tax a sàcc bu la yàkkam ci tax a fenn bu la yàkkam ci tax a tiryande ndax yàlla moo yore wërsëg وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ورتق ولا يلا يرل دانكو ماتل سك كون بوتي راغال بمريم وخيلو لخناكاي كما كان دعوة نبي الله زكريا داك زكريا تايجي خالي بو ندو موكاي ديلو تي بروامم نام فاتيو نون بروامم waye leg leg nit dina am soxla diko ñaan diko ñaan ba ci yag tayel ma daf fekk soxla bi ñorul waaye soxla bu la ñoree yàlla dama bëgg nga may ma soxna di ko wax semaine ñaari weer ñetti weer nga ne ah yàlla naru maa may nga bàyyi déedéet saxal ci ñaan rek dana ñëw ñoddi la bu daggul rek dikk kon lépp looy ñaan yàlla taxawal ca ñaan nga Zakariya bi ko Maryam waxee loolu xelam dellu ci projet te projet moo nekkoon ñaan yàlla doom dem na nag ba commencé tayel ba ni washtaala rasi shayba waaye nag walam aku bi duaaika rabbi shaqiya yàlla man mi kat dem naa ba sama kawar weex waaye nag du tax ma bàyyi ndax kawar gu weex teewuta am doom jabar ju màggat teewuta am doom doom yow yàlla yaa koy joxe mën nga koo joxe nu la neexee Zakariya foofu nag la jàppoo julli ay rakka ci jàkka ji rek borom bi nee na hunaalika daa zakariya rabba hunaalika foofale fa ko mariam waxee inna allaha yarzuqu man yasha bi gayri xisaab xelam dem ci xelam dem ci rek rek qaala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiu duaa yàlla maa ngi ñaan nga may ma njaboot bu baax booy ñaan yàlla njaboot ñaanal bu baax booy ñaan yàlla jabar ñaanal bu baax booy ñaan yàlla liggéey ñaanal bu baax booy ñaan yàlla xéewal ñaanal bu baax waaye yàlla may ma wërsëg rek kenn du ko wax kon ñaanal yàlla wërsëg wu yiw ñaanal yàlla doom ju baax gisoo léeg-léeg danga am soxla jékki ba ci yàgg dégg ku wax wax jooju dana la fàttali sa soxla ba nga ñaan ñaan gu mel noonu ndax summiyal insaanu insaanan li kasrati nisyaani léeg-léeg nga dégg ko am yéene naan man damaa bëgg a jàng ba am doctorat boo ko gisee muy jàng te bàyyiwu ko xel yëgal ni kii li muy ñaan gëmut ko gis nga li ngay ñaan te bëgg ko soo bëggee nekk borom xam-xam ëllëg il faut nga sonn ci jàng bul jàpp ni rek sama xel neex na rek heure bu ma liiree dinaa comprendre déedéet mais saxal ci jàng dëgëral ñaanal ndax la ngay sonnee bis boo ci paree da gis njëriñam moo tax zakariya ñaan boromam xër ci ñaan bi bàyyiwul borom bi nee na wa zakariya id naada rabbahu rabbi laa tazarni farda wa anta xayrul waarisin borom bi nee na zakariya woona boromam ñaan na ko ne ko yow yàlla bu ma bàyyi ma wéet ndax yàlla yaay gën ci ndonn kon maa ngi ñaan nga may ma ndono zakariya dem na day ñaan yàlla ci suuf da koy ñaan yàlla ci kaw lele mu wet rek ñaan yàlla ci xelam lele mu talal lox ci kaw ñaan izna da rabbahu nidaan khafiya ñaan yàlla ñaan bu suufee lan la wax qala rabbi inni wahana al'azm minni wastaala rasu shayba walam aku bi duaika rabbi shaqiya ne yow yàlla sama yaxu ndigg ma naa dëng sama kawar ma naa wex waye taxut ma tayel ci soxla bi malay ñaan man dal li ma bëgg xam nga ko wa inni khiftu al mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fa hab li min ladunka waliya yàlla ragal na sama ginnaw ma de duma am kuma ma te sama jabar màgget la kon yàlla yal nag ma may ku ñëw ma mengo mbiram mu mengo sama mbir waye yarisi ni wa yarisi min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya yàlla may ma dom jo xamne dana ma donn donn njabootu yaqub mooy doon njabootu yaqub mooy ci yonent ga ndax yonent yàlla yaqub ay doomam ñépp ay yonent lañ su ko defee wajaalhu rabbi ay sama borom ñaan bii maa ngi lay ñaan nga defal ma ko looy gërëm noonu nag ñaanam commencé nangu <coughs> zakariya doom la doon ñaan yàlla yàlla subhanahu wa taala nangul ko ñaan <coughs> malaaka daal di koy woo yaa zakariya inna nubashiruka bi gulaamin ismuhu yaxya lam najcal lahu min qablu samiya borom bi ne ko ay yow zakariya yaa ma doon ñaan foo toll di wax say soxla foo toll xamal ni man kuy dégg ñaan laa kuy nangu ñaan laa danañu la bégal ci gulaam doom ju góor dana la ko may te doom jooju sax man yàlla maa koy tudd jox la ko ne ko ismuhu turu xale boobu ma lay may yaxyaa la yaxyaa mooy Jean ci tubaab bi kon yaxyaa may naa la doom bu tudd yaxyaa te nag musuma kenn musul am tur lu jiitu yaxyaa mii turu yaxyaa moo ko njëkk a tudd ci kaw suuf borom bi nangul ko loolu ah Zakariya nag ñaan na ñaanam daa di nangu mu bëgg saalit bëgg saalit ga mooy yaa ni yàlla may ma yàlla di la may nga bëgg ko ni noonu mu nar a mayee te xam nga ne léegi léegi lii gis nga ko loolu mu nar a wax dafa fàtte ni moo doon ñaan qaala rabbi anna yakunu li gulaam wa kaanat imraati aaqira wa qad balagtu min alkibari ikiya kon Zakariya mi ngi bëgg fàtte kàttanu yàlla ne ah yàlla nan laay amee doom ju góor sama jabar dafa jërmel dafa jàpp jigéen bu jërmele du am doom maanaam léeg-léeg jigéen dina am feebar boo xam ne du am doom gis nga yàlla feebar teewu koo joxe doom doom moom ci coobareem la koy joxe waxtu wum ko nangoo waaye Zakariya comme nit la rek mu jàpp li wax naan kii bu xasee ba mel nii dootul am doom ku ménopause dootul am doom ku nangam déedéet yàlla dina may doom ku ménopause jabaru Ibrahim defal na ko ko defoon na ko jabaru Zakariya mi borom bi teg ca nag moom Zakariya ni waqad balagtu min al kibari isiya te man léegi màgget naa nan laa mën a amee doom qaala borom bi ne ko kazalika qaala rabbuk wala malaaka mi ne ko loolu la yàlla wax mooy may na la doom huwa alayya hayyin borom boobu daal daf maa sant wax naa te dana ko def borom bi ne ko waqad xalaqtuka min qablu walam taku shay'a xanaa da ngaa fàtte ne ba ma lay bind doo woon dara ma jóg amal la kon nag yonti yàlla Zakariya comprendre na ni léegi yàlla dana ko may doom léegi nag yàlla su bëggee dara day am innama amruhu ida arada shay'a an yaqula lahu kun fa yakun jabaru Zakariya jigéen ju baax nekk jullikat moom it ndeke ni Zakariya di ñaanee noonee la zaka la jogor jay ñaanee ñépp di ñaan yàlla borom bi ne fa naadatul malaayikatu malaaka yi woo nañu Zakariya wa huwa qaa'imun yusalli fil mihrab ma taxaw di julli ca mihrab ba ñu ne ko yàlla anna allaha yubashiruka bi yaxya yàllaa ngi lay bégalee ci doom joo xam ne yaxya la tudd musaddiqan mbir moom aji dëggal lay doon bi kalimatin ci ab baat min allahi bu bàyyikoo ci yàlla baat boobu bàyyikoo ci yàlla lañ na namm mooy isa ibn maryam it dana ñëw te bu ñëwee borom bi dana ko def sang wa sayyidan wa xasuuran dana ko def ku takku noonu la koy defee yahya def ko isa ndeke dana ko def wa nabiyan min as-salihin kon loolu nag yàlla may na zakariya la mu doon ñaan mooy doom ju tudd yahya yahya moom bu ñëwee dana dëggal baat bopp dana ñëw baat boobu nekk yàlla teel naa communiqué zakariya ne ko am na keneen ku ma leen nar may ci seen kër gi Dom ji ma may dana deugal koku te moy yahya kan la nar deugal moy isa allahu akbar yalla moy Hakim. ne ko ki di ñew dana dëggal koy ñëw zakariya gisagul kay ñew allahu akbar mo tax alquran bokk yi téere la bu yeme ne ko xale bobu di ñew wa sayyidan dina nek sang hasuran dana nek ku takku ko xamante ni du foye banexu bakkan du foye jigen wa nabiyyan min as-salihin léegi nag Zakariya ñaan na ba pare yàlla nangul ko mu proposé waat yàlla ne ko màgget naa nii ma mel su ma xëyee sama jabar ëmb am doom boo moytul nañ ñu damaa dem te njabarkat ya danañu wax nangam ak nangam kon yàlla dama bëgg nga defal ma keemaan bu tax bu ñu ko gisee xam ni lii a tax rabbi jaal lii aaya qaala aayatuka allaa tukallima annaas salaasa layaalin sawiya yàlla defal ma keman borom bi ne ko keman gi moy bul wax ak nit ñi ñetti fan ku wax ak yow rek nang ko joxoñ nga junj ko liar ko bu ko defé ñu gis ni ki kat xeyna da am lu am solo li mu nekkon bis buñ ñe jabaram ëmb nañu ah kon kay kay ci li la nekkon fani lu way wax rek du la faale du la ki di def di def nangam nangam nangam bam ko defé ci benen aya borom bi ne ko ayatuka alla tukallima annasa salasata ayyam illa ramza bul waxal nit ñi ñetti fan lu dul ku wax rek nga joxoñ ko nga junj ko wadkur rabbaka kaseera wa sabbih bil ashi wal ibkar tuddal sa borom lu bari del sabbalal sa borom lu bari ca ngoon ya ak suba legi nak lolu bu amé ñaan yi ngay ñaan digal ko nit ñi ñoomit ñu def ko zakariya jóg borom bi ne fa kharaja ala qawmihi min al mihrab fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa asiya dee leen sabbal yàlla suba ya ak ngoon ya moo tax ñoom xeet lañu boo xam ni kaanu yusaariuuna fi lxayraat moom la borom bi wax ne innahum naka ñooñee kaanoo nekkoon nañu yusaariuuna di njëkkante fi lxayraat ci yiw wa yaduuna naa ñoo ko ñuy woo di ñu ñaan raxaban ci bëgg àjjana wa rahaban ak ragal safara wa kaanu lanaa xaashiin ñoom kat dañoo toroxlu woon ngir ñeel ñu kon léegi Zakariya am na doom doomam Yaxya la Maryam <clears throat> moom it <clears throat> mi ngi ci kër gi xale bi yàlla noon na Zakariya ay xàmmekaaya ngi bi ci jiitu mooy lam najal min qablu samiya defaluñ ko benn tur lu dul tur bi kenn njëkku ko ci kon kenn xëyul ne man lañu tuddé yahya kenn fañu ko wax kon premier tour la bu ko yàlla jox mo ci jitu ñaarel bi wa aataynaawul hukma sabiyya xale bi dañ koy jox até mu nek ndaw ñettel bi wa hananam min ladunna day nek ku leet baax jublu ci ñun wa zakatan ku sel lay doon te wa kaana taqiya day nek ku ragal yàlla yemut ca waaye wa barran day baaxe bi waalidayhi ci ñaari way juram bu isaa ñëwee wa barran bi waalidati lay wax mu ne walam yakun moom yaxya nekkul jabbaaran mbër saay-saay asiyan buy mooy borom bi alayhi salaam léegi nag borom bi ne wa salaamun alayhi jàmm yal na nekk ci yaxya yow ma wulida ba mu juddoo wa yow ma yamuutu ak ba muy dee wa yawma yub'athu hayya ak ba muy dekki yawmal qiyaama léegi nag yaxya moomu dana gëm isa bu isa ñëwee loolu nag beneen bind la ñu koy jàngee ji ci dundu yonent yàlla isa yaxya nar a nekkee noonu nag ca kër ga xam nga yonent su xësee ba am doom rek te doomam nar a nekk yonent lu ci bëri ci mbiram dootoo ko dégg lu bari loolu ñëwoon na ci daawud ak suleymaan bi ñu demee ba ñu wa daawuda wa suleymaan is yaxkumaane fil xukm daanaka déggatoo daawuda ba dund suleymaan jeex fii it nag zakariya la ñuy waxtaane dundam waaye bu yaxya ñëwee daanaka dootoo dégg zakariya lu bari ndax dafa mel ni yaxya dafa ñëw ngir remplacer zakariya yàlla yàlla may ñu dégg topp insha allah ba dàtt bii di ñëw wassalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu